Pikine day te ñaari xale yi dee waaw les écoles yéen a kaane dama ne la coowal Dabala googe ak Waly ah. tuuma yi nga xam ne moom la yëkkati nag lal ko ci ndoo dal ñamu lay mi ak juróom benn góor ya waaw mbir ma diis na léegi yéen yéen démb kon ca tribunal ba dama ne diis na ña ngi leen di toppee wàllum faat bakkan allahu akbar wàllum jëf ji ñaaw wàllum complice ak yeneen ak seeneen sax ils sont poursuivis pour assassinat acte de barbarie et complicité de ces aha waaw waaye ay avocat nabu lay day amul lu ñu deful démb laa lay wax kàddu di suuf si dee dia déedéet parce que nag jëf yi ci boppam kon dafa garaaw a garaaw a garaaw lool te réew mi yëngu mbir ma mënoon na caane ah waaw waaw te mooy tamit seede kon daal di yëngu mbir ma mënoon na caane looloo tax day dugal nañ leen kon ca kaso ba ni ki démb allahu akbar bergateur yéene kaa de nabu lay day ak ñamu àndal compagnie waaw mujj nañ leen dugal kon ca biir kaso ba la ilaha illallah laaste eh. moom nabu lay moomee eh. waaw ak gàngoor gi nga kon moom la ñu day lañ leen door ci ay tuuma ci dix-neuf termine yéene kaay ne coowal meurtre ba ñaari bakkan yi nga xam ne kon dañoo root kon ca Pikine Technopole gële waaw Nabou Leye moo mais ak ñu mu àndal nañ leen a yóbbu na kon ca kaso ba la yaay la la leen di toppee daal bokk na ca jël bakkan assassinat bokk na ca def seen kuréel di def lu ñaaw di association de malfaiteurs ay def lu ñaaw a ñaaw acte de barbarie sàcc goo xam ne kon rax na ak wàllum complicité ci wàllum jëlug bakkan libération yi ne kaay ne kaay nag ma ñamanaat la kon tuuti ci enquête division xam ne kon moo am ca allahu akbar gis nga ndaw si la seede moom kaa siisee ah nee na pourtant nag man dégg naa benn yuuxu bu doy waax ma ne bërit daal di daw kon génn ca mbedd ma yaakaar ne fa la xewee gisuma dara moom ah baax jigéenu Aziz Dabala la ba pare nekk seede nee na nabu lay day daal di na may woo ne ma Aziz day kenn mënu koo jot Aziz day kenn mënu koo gis yéeni kaa gi ne ay waay junni bi nga xam ne moom la ñu génnee nag ci compte wéebu Aziz Dabala ak trois mille francs bi nga xam ne nag moom la ñu génnee kon ci compte Babacar Gano waaw ci benn multi service ci ginnaaw raay ah waa multi service yooyee takk-der yi déglu nañ leen de dëgg la nan la Mamadou Lamine Diaw mi lée ak Omar Gueye Fallou Diop alias Mbaye Fall ak Serigne Sarr ñu naan ko ndef nan la leen takkadeer yi mu mujjee wër ndomba waaye ñaari gérant multi service yi day waaw ñoom tamit seen seede ah moo gën a dugal gaa yi de fa nga xam ne foofu lañ retiré wéet yi ah moom Omar Gueye mi lée daal di songu ndës numéro bi nga xam ne moom la ñu géolocalisé daaneel leen gisoo Mamadou Lamine Diaw mi lée xanaa xamoo leen ba muy jóge ca bërëb ba jàllaaba nga xam ne kon Abdou Aziz Ba Aziz Dabala moo ko moom moom la sol allahu akbar yénee daal di kon takk deret laa la wax ay wàajjilee moom Fallou Diop mi lée moo song kon Mamadou Lamine Diaw mi lée kookee tam takkal kii di Ousseynou Diaw di nijaayam waaye Assane Diaw day nga xam ne mooy rakk ja waaw ko ko daaneel nag moom maanaam ci kaw gàttal daal dañ doon tamante seen biir laa wax ku nekk naan def yaa def yaa def daa yaa def kon kay ga kay ñoom la waaw waaye nag xam nga lan moo ci gën a garaaw Mamadou Lamine Diaw mi lée ginnaaw ba nga xam ni kon rey nañu Aziz Dabala ak Waly waaw daa téléphoné kon Nabou Leye ak Nabou Leye itam niñ ko géolocalisé loolu itam doona waar waaye tiktokeur ak journaliste yi nga xam ne ci facebook bi lañ ne waaw am na ca ñoo xam ne xanaa xamoo ne convoqué nañ leen takk déer yi déglu leen ca DSC waaw ndax ñaari plainte yoo xam ne kon indi nañ ko fa rey gi daa la ñu mel ni tul rek male ubil sursa nañu xanaa xamoo leen ne am na keneen koo xam ne itam dañ koo rey démb ca Tivaouane Pël gëy mar bi daal ceeb de moo leen boole boolu ceeb mënul ne maa la wax li la de yéen kaay da càmmi ne moom Mamadou Diallo mi lé waaw daa rey xaritam ami d'enfance la Abdoulaye Gueye dama ne dañoo toogoon nii ci biir néeg bi doon lekk seen waa ji jékki-jékki daal di jël paaka ne ko ko jam bi seedey déggee yu xóobeeg yooyu dañoo yaakaaroon ne dañuy fo te ki rey ak ki ñu rey ña nga àndee ca Badalaw ca Tàndama Yoba région Matam waaw gannaaw ko nag la ñu dajawaat fii ci Dakar Ndiaye jël Diop waaw nee na wàllum kaaraangew askan wi lée nañ lañ te jël koon ay matukaay laa lay wax nii di koy yokk wàllum sécurité publique bi lée sécurité doomu aadama yi premier ministre bi Ousmane Sonko day waaw nee na loolee nañ te gën a jóg wax looloy dëgg de looloy dëgg de nit ñuy dee rek assemblée nationale bi lée ci dee jëm laa wax yëral critique yéene kaay dama la assemblée nationale baa ngay sukkuraat laa la wax de décès day certificat de bu daanaka fukki fan ak juróom day moo dese kon assemblée départ di Italie maa la wax loolu dama ne la waa fale ba di exécutif bi ah daal dinañuy song nag tas yéen ci ay institution yoo xam ne day ñu ngi ci biir réew mi de la ñu taafantaloo mooy il faut ñu sakkanal alalu askan wi e DDN info groupe whatsapp la 76 693 89 04 abonnement 1600 chaque fermement 1600 foofu la askan wi de dëgg la dama ne la dana jëfandikoo li nga xam ne moom la yoon may ah, dana ko woon député de ngir song assemblée nationale nga xam jàppe ne assemblée la ko fi au conseil des collectivités territoriales conseil économique social et environnemental ci waaw assemblée nationale day arbitre ba de ne digg ba de arbitre ba de ci professeur agrégé day gis nga dindi ay la suppression des institutions lu la day ak suñu politique gi ak yi ci Sénégal heures tas au conseil tas conseil économique tas assemblée national waaw waa pare ba day exécutif ba dama ne la wane nañ seen bopp nag laa la wax en tout cas Amadou Mame Diop ah convoqué na député kon ci session extraordinaire tey ji lee ci alxamis ji dëgg la waaye gis nga proposition réforme constitutionnelle googee ah wàllum sakkanal dal alalu réew mi lee bokk na ca la tax gars yi bëgg a tas kër yi wax yoor yoor yéene kaa ne tasu conseil économique social ak au conseil ji lee waaw opposition bi day xanaa ñemewuñu loolu wax Amadou Ba député nee na assemblée nationale ci boppam moo amul kon benn sañ-sañ benn kattan compétence ngir bloquer convocation session extraordinaire bi nga xam ne président de la république mi lée moo ko bëgg député Ayib Daffé nee président de la république ndayu luwaay constitution bi article soixante trois ci boppam waaw mais da koo respecté Diomaye da koo respecté député Samba Deme day député ne ci opposition bi lée buñ ci bëggee nekk na indi ay xeexal kon ñoo leen di bulee tasum o conseil boobee eh, ak conseil économique waaw député day jàpp nañu dat jàpp nañu dag de danañu dage tey jile ci suba gi kon ca plénière a kaay ma jamba jàngee wax lii waaw l'info yéen a kaay de li wax waaw sakkanal alalu askan ak dépense yi ah. tey nag may expliqué nguur gi nan la fa seenee serré la ceinture laa la wax serré la ceinture ba mu ne jàng wàllum informatique beeg appareil électronique yéeg yi nekk ci bâtiment yi dee ah dootuñ ko jëfandikoo comme ni ñu ko doon jëfandikoo noonee de def leen neex waaw jëfandikoo tamit énergie solaire gi budget deux mille vingt quatre bi lee yenn ci ay programme yoo xam ne jàpp nañ ne neexul ba neexul mais lii du farata récupéré waat alalu réew mi bépp patrimoine bâti de l'état ak parc automobile auto yeeg yëpp récupéré loolee dana tax nag ba masse bu weer wi li nguuru Sénégal gi di fay agent yi ci état bi lee na nañu ko wàññee noonee te lañ Ousmane Sonko bi la jëm de ak Diomaye waaw waaye mission yi nga xam ne kon agent yi ñu ngi dem à l'étranger les agents de l'état ah xaalis de waaw loolee dem nañu ko xoolaat parce que ci ay institution yoo xam ne amul njariñ nguur ga dana ca ay action yoo xam ne daal maanaam danañu ko boolee sakkanal yénn ci wàllum koom-koomu réew mi lay ci ay dépense yoo xam ne ñoo gën a nekk farata plus stratégique ñu jublu ca Ousmane Sonko lii la wax bés si la journée sakkanal day wàllum dépense publique yi lée lii la Ousmane des ministres te o des ministres ba kon ni ki démb waaw masse salariale nguur gi wàññi ko rek dëgg la ci ay programme yoo xam ne xuusma ñàpp ñàkk fayda loolee dootul amati ci budget 2024 bi sakanal rek oto yeeg yénn ci bâtiment yeeg sakanal rek yi la Ousmane Sonko wax bi bitim réew gee ñuy dem mission sakanal rek yi la Ousmane Sonko wax njëndug matériel yi ak mobilier bureau yooyu yooyu ci administration bi sakanal rek lii la Ousmane Sonko wax laate Ousmane a Diomaye kay ay coppite ba waaw waaw yéene kaa ngi ne waaye moom premier ministre Ousmane Sonko day waaw ab goxi national lu waaye wan noon ni ko gën goxi national ah maa la ko waa waaw mbaadu moo tax la joob ñu ne ko dëppal se ko yéene kaa ne la joob day waaw da doon tukki ñu ne ko dëppal ba pare door nañ ko këyit wax ko ne ko réew romb ko génnati aw oh, waaye bu dee ci biir réew mi de fu la neex demal waaye bitim réew na dak la ilaha illallah libération yéene kaa ne brigade de recherche suba day ca Kër Massar ginnaaw nag moom la Jóob mi lée bañ ko dégloo ba noppi waaw ci ay tuuma yoo xam ne kon daal la lu ci ndod dem ñu ne woon benn milliard liee téyee ba koo tuxal mu weddi ba tëdd ca suuf ne day plante nag ko mu tuumaaw ba léegi plante ko moom la Jóob moo mais ba léegi kilifa bees yi bàyyi wuñ ko sort diplomatique day waaw waaye moom mi fi nekkoon ministre des sports démb day ay booru sept heures du matin suba ah ca ko police de l'air et des frontières paf ak passeport ordinaire am de mu doon dem ca Paris waaye bi ñu tegee passeport am bi ca la job day policier dañ ne ko kaay commissariat spécial bu aéroport ca foofee nag lañ ko daal di bindal kay daar daar ne ko jàppal ni bis tiki tey jiree yow la jóob tere nañ la ne la bul tukkeeti allahu akbar la ilaha illa allah daal di nangu tamit passeport diplomatique am ba ne ko yow sa tukki bu mujj bi de di ngeen ñibbi si ci Sénégal kii mais enregistré la ko di rek loolee erreur la yéene kaay si nag ku mu dal ku ne waaw jàppal ne gaa ñaa ngay enquête te yow wala ñu ngi lay wër rek libération yi ne kaay ne Cheikh naa Keita day commissaire ni ki démb nag lañ ko convoqué woon te dik waaye tey jii ji suba waaw dana fa delluwaat nag kàddu yi nga xam ne da koo yëkkati woon naan joomaay ak Ousmane Sonko mi ne dañ doon jàppante ca pale ba eh, Serigne Modou Bousso Dieng tamit day altine lañ ko convoqué police ndax Cheikh Oumar Diagne moo ko plainte moom Serigne Modou Bousso Dieng waaw ñoom dee jub-jubal jubanti la ñu woote su saane waaye seen ONAS kee day ma nga ni daaray kocc mardi Sidi Cheikh Tidiane Dièye daa bind kon DCMP pour ne leen day entente directe ba waaw te ñu defaloon ko kon Delta ak Dicaas ne leen dellu naa ca ginnaaw benn fan lañ ca teg ka nga xam ne moo wuutu Cheikh Dieng kon ca bërëb ba Seyni Dieng waaw mais moom it mu bind ngir entente directe maa la ko wax yéen kaay on as daal boo bëggee dégg dëgg sorantewul ak daaray Kocc évidence yéen kaay ne projet d'électrification rurale gi lée ak entreprise espagnole ba waaw aéroport IPC aéroport bu Sénégal SA kon nguuru Sénégal gi lée ak espagnol yi dugg na seen de parce que entreprise espagnol bi le kat wàllum usurpation de paternité moomul projet bi loolu ñuy wax ne kon directeur général u ASER bu bi lée Jean Michel Sène waaw daa renégocier waat kon contrat beeg yooyee dama ne rek am na caa parce moom directeur général ba day da dee de ci am cooloo xam ni kon mi ngi dox ci diggante ki nga xam ne moom moo gagné marché bi laa la wax muy AEPO nañ ko dëgg waaye déglu rek parce que nag ginnaaw ba mu laalee kon trente six milliards waa ARCOP ci boppam kon dañoo bañoon waaye décision ARCOP googee waaw mais direction générale affaire da pare teg ko nële te la AS Sénégal daal di tuumaal nag partenaire espagnolam bi lee ne defar ay faux ngir yàq deram laa la wax mais la ca gën a doy wax ak kob googee ah dañu koo mujj génnee nag ci wàllum négociation bi maar di taal ginnaaw ba directeur général u aéroport IBC espagnol yi ñëwee ci Sénégal gii te pourtant moom directeur boobu tubaab boobu daal lànk ne du dem wuyu ji kon ab convocation wa ak kob eh affaire u affaire wax bés si la journée waa rajo day waaw ña ngay naqarlu nag waa Pastef yi nga xam ne songu Alioune Tine la wax ab cat day songu na parti wu Khalifa Sall ba vingt quatre heures yéene kaa ne ñaar fukki cadre ak juróom benn day ñoo bàyyi bés si le jour ne ko déedéet vingt quatre la vingt quatre cadre dem naa ca basket ba euh, les fo yéene kaa ministre des day Khady Diène Gaye waaw na waa équipe nationale U18 ne leen joué leen ngir terangal te yëkkati tamit suñu réew mi lée jouer ensemble afin d'honorer la nation sénégalaise basket bi day mom ay jambar lañ <laughs> waaye lu ñu doon jambar jambar jambar jambar jambar jamba bu len fàtte ne suul gaz du ko téré xéñ daw taxula taxulaa ndax Sonko koy jomaay te jomaay mooy Sonko bo paré mané la aladi fi jël